xam sa sa tey xam xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñu biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund suñu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal suñu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaanee ku tedd ñu koy wax Cheikh Ibrahim Niass di ko gën a xam ci turu baay cheikh al islam kooku nag mooy ki nga xam ne mi ngi gànne si àdduna te ki ko meññ di cheikh Abdullahi ñas soxnaam su tedd sa soxna su jànq di way juróom wu jigéen kon nag mën nañ jàpp ne kooku ñu naan Ibrahim ñas di baay wala Barham mi ngi feeñ ci jamono juróom-ñetti fani novembre ci atum 1900 ca dëkk bu naan ba Niassène muy nag dëkk boo xam ne way juróom wu góor baayam moo ko sosoon ca Saalum ci atum 1868 xam sa démb xam sa tey yaram nag ci yaru diine yaram ci njub ak ci ngor ba muy tuut tànk ci zaayir way juróom wu góor wa xajulu ci woon kenn moom dong moo ko mottali loola nag moo tax Cheikh Abdoulaye Niass suufi bu mag bi nga xam ne ci kerkeraanam ca la xeeñtu ba dugg ci tarixa tijaan xam sa démb xam sa tey muy yoon wi nga xam ne ki ko sos te yàlla may ko ko te baaxe ko mooy cheikh ahmed tijaan radiallahu taala anhu kooku nag moom moo ko jàngal bëgg xam-xam moo ko jàngalit mu tàmm di gëstu jàngal ko it dëddu àdduna kon mën nañoo jàpp ne radiallahu taala anhu Cheikh Abdoulaye ñas Baye wala Barham noonu la feeñee ci jamono noonu lañ ko dottee ci am njàng. li nu xamoon ci moom nag mooy xam-xamam foo ko natt romb na ko muy xam téere yi xam sunna xam charia boole ci nag rafet mbind te dégg alxuraan Cheikh Ibrahim ñas moomu dafa teel feeñ ci génne mbind moo xam ne dayo ba ëpp na solo. ndax bu nu jàppee ruuxul adab mi ngi ko génnee ci atum 1921 waaw kooku nag ginaaw bu waajuram wa tedd wa dëddoo génn moom ki ñuy wooyee Baye ñas ci li ñëpp gën a xam dafa dem ci magam toog ci këram jébbal ko boppam muy xalifa Mohamed Niass radiallahu taala anhu ci wetam nag mu toog fa juróom-ñaari at nekk rek ci njàngum alxuraan ak xeeti xam-xam yi nekk ci alxuraan ci dëkk bu naan Kosi bokk ci yenn ci gox yi nga xam ne seen waajuru tedd wa seen baay moo ko sosoon li nu xamoon ci moom nag mooy xam téere yi nàmp leen xam li ñuy tekki gis mbóot yi amuñ ci woon moroom waaye nag terewut mu nekkoon baykat boo xam ne bu duggee ci waar song ko amu ca moroom looloo tax nag mën nañ ne koomu Sénégal def na ci loo xam ne néexut nit di ko dab ba tax na bi nga xamee ne atum 1929 mi ngi jeex bi ñuy màggal gàmm gi muy juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Léona Niassène Cheikh Ibrahima dafa am wax ju rëy ju fa waxoon. mu ne nag bis ne tey càpp leen ne doon naa ki yee salaat tijaniya waaye maa ngi koy jaaree ci lii di fayda bi kon nag bi ñenn ñi nga xam ne ci jataay ba ak ci ñi ko dégg. am nañ ci jiixi jaaxa ba bugguñu ànd ak moom mu daal di dem Médine toog fa mu tolloog ñetti kilomètres ca fa mu nekkoon 1930 looloo la. kooku nañu jàpp ne mbooloo mi nga xam ne ñoo ko wër mbooloo mi foo ko takk weesu na ko jumaa ji ak daara yi alxuraan yi nga xam ne moom la samp Médine mujj nañoo doon ceñeer Ibrahima Niass kon mi ngi njëkk a dem Màkka 1937 waaye ba mu fa demee nag yàlla dafa dogal mu xamante fa ak wëllëreem ci biir tukki bi nga xam ne kilifa yu mag yi ci umma islamique yi tase ak ñoom mu am fa wëllëree ak Hajj Amin Ousseynou di nag boroom xam-xam bu mag bu dëkkoon Palestine loolu moo tax ñëpp xam nañ taxawaayu Cheikh Ibrahim ci xeexal waa Palestine li ñu mën a jàpp nag mooy kilifa gu mag la xam-xam ba juddu ba waaye juddu bu mu dul tiitaroo mat ga ngor ga loola taxoon na mu jël bis bu mu tuddee woon alxutsi gàmm gune mu cay màggal moom gi Palestine wara moom boppam kon mën nañoo jàpp ne ca Màkka it fa daje ak Abdoulaye Bayero buuru Kano kooko daal di mujj yéemu nangu ba jébbalu ci moom Baye Niass moomu nag ba muy wàññeeku jaar Faas fële ca Maroc xam sa xam sa tey ca la dalal Ahmed Sukayrij muy xalifab Cheikh Ahmed Tidiane loola nag mën nañoo jàpp ne isaaz itlax autorisation la ko jox jox ko ndigal ne ko kon mën ngaa joxe wirdu yi saa yu la neexee ba samp ko nag mu doon muqaddam te ne ko ku la neex mën nga ko samp mu doon muqaddam te man naa yaatal tijaniya kon mën nañ ne islaam fu mu yaatoo islaam fu mu rafetee islaam fu mu yànjee islaam fu ko nit ñi gën a bëggee mën nañ ne moom de bokk na ci kii samp kuréel wala ñi samp kuréel yi gën a rëy mën nañ cee jàpp ligue islamique mondiale ak congrès mondial islamique moo xam na topp na ci ki jiite président yi ñowaari kuréel yooyu yëpp waaye xam bi mu xamoon alxuraan ak mbóot xam bi mu xamoon sunna yonent bi sallallahu alayhi taxoon na ñu tuddee ko cheikh al islam ca université bii di Al Azhar Caire nga xam ne lu yéeme lu bëriwut nit di am moom am na ko fa ci nit ku der bu ñuul jiite fa jullik ajjuma kon mën nañoo jàpp ne Cheikh Ibrahima Niass Sénégal royuwaay la ci mbay waaye nag songu rek xeex bi nga xam ne da koy xeex ñàkk ak ndóol fexe ba nit ñi di bay di dundee tam muy doy loolu taxoon mu am ay tool yoo xam ne tooli dugub la tooli mboq la tooli gerte tooli ceeb ci fépp ci réew mi fu ne nag mu teg fa coopérative bi nga xam ne li muy bëgg ak li ko yëkkati mooy fexe ba nit ñi taalibe yi am koppar joo xam ne duñu laaj kenn sa alal loolu nag moom moo tax mu bàyyi woon xel ni ñu yoree réew mi loolu bu mbir daan am day ñëw taxaw di wax mu ci réew mi wala muy bitim réew tax na sax ba maître Lamine Gueye taxawee ne dafay dem assemblée nationale française ak maire Dakar war a nekkaat président assemblée nationale u Sénégal lu ca ne taxaw na cen na ko waree gis ngeen nag li ko yëkkati mooy Afrique doon benn Afrique am jàmm Afrique dëgg di fi dox nit ñi moom seen bopp te Afrique méngoo ak jamono. loolu moom moo tax bi Gamal Abdel Nasser président Égypte soxla moom ci panafricaniste bi mu nekk. mu jàppale ko taxawu ko. noonu la taxawoo woon Kwame Nkrumah ak ay moromam ci xeex yi ñu doon xeex ngir Afrique siggi kon mën nañ ne liggéeyal yàlla tax na mu dem ba Chine nga xam ne ña ko woowoon foofu prier ko fa mooy jullit yi atum 1963 Cheikh El Ibrahima Niass kooku mooy ki nga xam ne musta sonn Barham ñas décoration bu nit xalaat am na ko am na ko Maroc am na ko Tunisie am na ko Égypte am na ko Libye am na ko Nigéria am na ko gana am na ko Gambie am na ko France ci ñu mën a wax li ñu mën a jàpp nag mooy ginnaaw ay ati ati at yi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam dundam gépp Cheikh Ibrahima ñas Barham Cheikh al Islam mi ngi wuy ji boroomam ñaar fukki fan ak juróom benn ci juillet 1975 ci hôpital bi ñu tuddee hôpital Saint Thomas bu londre ca Angleterre kooka nag mi ngi bàyyi ci ginnaawam mbooloom jullit mu takku new say adduna bi fu ne ñu nekk fa ñoo xam ne lim bind ñu ngi ciy góorlu di ko wesaare di ci jàng lim leen jàngal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy topp te Cheikh Ahmed Tidiane doy na leen kon nag ki ñu doon waxtaanee tey mooy Cheikh Ibrahim ñas ñu gën koo xam ci Barham wala Cheikh al Islam ndaanaanu diine bu mag boobu Afrique ak senegal war fëgg seen dënn ne am nañ doom ju noonu xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Institut